ñaari fan yëpp nag dañu fi nekkoon ak femmes yi nga xam ne di nekk ci salon de coiffure di ci liggéey liñ si jublu woon nag mooy dañu buggoon femmes yi ñu sensible ñu orienté leen wax leen CMU ba mu leer seen bopp ndax ñoom ñu mën a volontaire dugg ci CMU jaare ci mutuelle de santé yi bu fekkee ni ñuy wax ci résultat mën nañu wax loolu moom am na am nañu ko ndax jigéen ñi ñoom nangu nañu dugg ci mutuelle de santé yi bi leen expliqué njariñ yi ci nekk yëpp ak ni ñu ciy demee ak ciy cotiser ak yëpp.

Nous avons ak l'Union union régionale des mutuelles de santé représentée par monsieur Moustapha Mbeng et tamit agence bi agence de la couverture maladie représentée par monsieur Matabara Diop qui est atelier bi. sunu euh, d'abord dañuy un recensement une base de données comme ça région de Dakar tey jii nii département de. de de de de Dakar wala département de Rufisque saa si ñu wax la ñaata Sanlaw moo fa nekk parce que loolu rek liggéey la. mun nañ ne suñ defee base de données boobu nag gën koo beesalaat ba nga xam ne ne information yëpp jot nañ ko mun nañ ne léegi léegi nii fii ba ay quelques mois wala ci année bii boog 1500 léegi nag ba 2000 léegi nag yeneen i année yi di ñëw comme li ma wax liggéey bi day continuer couverture maladie universelle am na pàcc boo xamante ne. tay dafa ànd ci lu melni di len accompagner ñu signé ak Sonia Sey mi seen présidente ben convention pour ñu lekkolo pour fexé ba nga xamantene képp ku am salon wala institut de beauté ya wax sa personnel ngeen mën am carte couverture bo len février mëna faju ci njëg bu yomb waye yemuñ ci lolu dañu ne dañuy lancer ben campagne bo xamantene liñ ci djublu moy nga bindu bindu sa njabot waye dimbali sa dëkkandoo dimbali sa mbokk ndax japp nañu ne couverture maladie universelle mutuelle de santé yi mu tek ci gox-goxaan yëpp nga xamantene bo naté juroom ñaari témèr muy 3500 fo feebaree wara faju lo wara fay ñu xaaj ko juroomi xaaj ñun ñu fay ñent nga fay ben bu ko nit ñi xamé dinañ ci mëna dugg. li ñu xaymaagum tay jii ci campagne bi moy amna maire yu bari yu engagé wu amna ñu ci sax signé ay contrat de 5 ans ñi signé engagé wu pour jël ay élèves. jël ay bi ndax xam nañu tey askan wi nii politique pour ñëpp am wér-gu-yaram fegu faju yomb ñu étendre couverture maladie universelle foofu ñu dugal ci seen loxo.